waaw ehm, Aïcha comme noo leen ko gisee rek ah, jamono ji ah, ñu ngi nii ci kër ñoom Moussa Ndaw ah, yéen a ngi gis suñu collègue bi nga xam ne moo génn àddina yaayam nag moom la ñitti di kansul foofu noonu yéen a ngi gis maire baa ngi noonu salaamaaleykum yaay bi ngeen gis ni yaay bi moo nekk nii ndeysaan massa massa massa massa massa massa massa yaay Moussa Ndaw naa gis noonu yaay Moussa we are from the TV so soon collègue la comme noo leen ko gisee rek uh, dëj bi leen nekk uh, comme noo leen ko gisee saa su ne rek uh, ku nekk dëj daf dee am um, kër bu nekk la moo dunda dafa mel Musa Moussa was a very hard working man moo tax ngeen gis yaayam mu Joy, jooy yu métti yi ndeysaan yombut meeroon na nga def ndeysaan ah, daw na yaram ah, massa ma ne ko massa ah, kenn ñoom Pa Modou Fall tamit nii la mel jamono ji mu ko jamono ji tamit nii la mel mu nekk loo xam ne lu métti la jabari Moussa Ndaw moom ngeen a gis waaye xam naa du ñàkk dinañ leen bàyyee téléphone number kër bi su ko defee ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a jàppale famille bi parce que jabaram xale la nekkut mag moom ngeen gis moom moo toog ne def kaala bu mol ci kola bi Ah, moom moo toogee noonu ah, du ñàkk rek ah, dinañ waxtaan ak broda bi fii moom mu wax ñu tuuti si lan la xam si Musa na def noo tudda almaamo naka daabo almaamo kan mooy woon Musa who was Musa to samo dolom sa mulki den do kunu ko kunu ko abudan da kullu bila len kala da ala musole ambe ado mala ni ba kilim fa kilim le ni ne wole be mbulo ko sa fa ay kido min do wala ya mhm. musa ambe ma tan bitan ni ngamu to ko ko fulam mala ko so ambe lagam boy ka woni bilen bansam ko to na nata do ma ni ba kilim fa kilim so musa kokkiɗewde dal guel tafen fo gonora kokkiɗewo ya lomo nakkuo mantata gonowo baɗo noon musa lakkuo dal fo bala fat because famille kin ɓokkiɗenɗi mhm. wona tele ɓe maɓe famille leyni koɗɗa famille ɓe responsable batele kana so ɗo ene weeyi spen four nak boɗo ha ɓula ala ɓuɗa ñaata jaboot la ko yaala mayi eh, aye mo mo mo mo saba sotola aye kun sal sotola ni bo kilin fana aye wol fana sotola masha Allah waaw mo nana waaw Ah, ah, dinañ neen bëgg nga dem jëlali ñu Moussa Nombaam du ñàkk am na ñuy seetaan ñoo xam ne dinañ bëgg a jàppale ah, family bi parce que Moussa was a very responsible person moom ak suñ collègue bi Moussa ñoom ñoo bokkoon benn liggéeykaay si Observer ñu doon liggéey lu bëree bari ki ngeen a gis ni di ko seen kii mooy jabari Moussa ngeen gis ne jabaram tamit ndaw la jëkkëram tey dafa génn àddina yaram daw na ma yaram daw na sama ko mara fa watta sama ko tar yata tar mo takun yo do araba do ni musa mhm. ado ma bare muso mun dafa tolu ni de ngoy nga kul yo ko araba ya, do yo wala ni mama ya la be hata fa dum ya ngana na tar sirim de na di ngoy ko la musa laku ke so ko ko mo nekata ako ni asidang la ya so to bara ma mbadu di ala la hala ma ala ni manen ka far eh? kaaye la jang so ya na mo ko la bulu arabi na ma ala ya ko mo suma la hindu man dunal me barka tele to ki la kila hormona barko sabula arabi yarabana yarabi yarabana ma dina malaka hinan to bulu ma ko mo suma ya la lam muhammad ko do kan jonni ma hormo be wala en be wala en be yam fo di dara dani la lakira a ah, kata musa ya kata ay nim bara ya ah, kata mal jamad ya la nah, amin amin amin ya amin uh, whole face na mane ko whole face na Euh, kër bi fu mu nekk nii digga euh, digga digga métti na ma ne ko métti na waaw euh, na nga def jàmm rek noo tudd ak musaa Salan la Moussa yumpaañam la ñu jaayam li xam ne moo yar Soona yar Moussa si boppam may jabar mhm. sant yàlla ndax yàlla lu defal rek da jël ñu ngi sant yàlla buur boobu nga xamante ne moo ñu ko jox moo ko jëlaat ah di delloo yëpp borom bi rek di wax alhamdulilahi rabbil alamin musaa nag ay mbiram moom suñ ko bëggee wax fii la ñuy fanaan ndax Moussa am na yar am na teggit am na diine xam na bët xam na kii sama kilifa la mm-hmm. man de gis Moussa mer mm-hmm. mosuma mosu Moussa Moussa mosut ma wax lu ma naqari. Mm. nijaayam tamit noonu. Mm. ah ba yàlla jëlee ko fi lu yàlla dogal nag kenn mënu ci dara. Mm. lu yàlla soxlaa jaam soxla jaam mooy ñàkk. di ko ñaanal kër gi nii njabootam gi. yàlla si yàlla teg loxoom. loolu leen yàlla barkeel. Moussa lim ñàkk. si gudd fan. ci wërsëg yal na ko yàlla yokk si njabootam amiin yaa amiin ci baraka salaatul fatiha mm-hmm. wax neexut ndig dëj bu ees dafa metti mm-hmm. surtout koo xam ne heure bi démb mu ngi fi mm-hmm. démb depuis quatre heures du matin démb foo am ba tey man nelawuma bi ma ko yëgee gaw yëgee gaw ma ko waaye nag moom sant yàlla rek maa leen di sant yéen tamit li lu métti la euh, network difficulties rek leen doon am euh, noonu si biir euh, bu ko defee rek Aïcha dinañ wax ak kilifa bi man la doon laajte suul bi fan la ak kañ la. Mhm. Ah, Lamin ok ok ëllëg voilà incha allah ndeysaan uh, meeting na uh, ma ne ko métti na uh. mm-hmm. um, Aïcha yow ak Moussa yéen a doon Uh, I fully remember uh, ministry of health saay bu amee program, musa doo ko dee as colleague So ko gisee sam daa na nga wax sax kii moom ban façon nit la parce all the time mu always happy in Mandenka um, Mm-hmm. ndeysaan euh, Aïssatou euh, Coly nag fu mu nekk nii euh, xolam dafa fees xolam fees na mënut a wax ma ne ko mënut a wax mu ngi jooy rek ma ne ko mu ngi jooy massa massa comme ni ngeen ko gisee ñu ngi nii si kër bi ne ko ñu ngi nii si kër bi family members yaa ngi fi ñu ne Dima Moussa time bi mu ngi woon si family am toog di waxtaan nag ak mbokkaami but unfortunately tey nag moom family am yi mënut a wax mère salaamaaleykum ndeysaan yaram daw na ñu ko yaram daw na métti na a ah, gis neen fi tamit waa GPU ah, waa Gambia Press Union ah, ñoom it gis neen leen fi bu yaagut ñoom ñu ngi dem parce que te dëj dafa bari salaamaaleykum loo ñu mën a wax si Moussa gambet wala mm-hmm. itoɗum ɗo mamu jami mm-hmm. naɓe perta sate kiɗum toñataba ma mm-hmm. alon ada baba mum barnet alon ba ga mo kedde ba balo fata bi be duwala ndenga ala ar ar jannola amin la sido ala ma fare na atten amin ya bula ala ma ala lola bi amin ya mo lola ba ke baraka masalen lakum masalen mer itodo lo muna wasi musa musa kendo le aya aya badi aja aya baadiyajo ay siñoyano alama anu. ala yasamba aljana ya barke salatu fatiha mo kendo le ton be ngalo le kutol be jam siño jam kerewan jam kutol halik kuliyo ni abe kalam mina jam mo kendo le mo kendo le ndeysaan euh, bu yàggut rek euh, ñu gis Watson Gambia ñu ngi bina ne Moussa mu ngi utal euh, waa koñam mbete it waa goxam li nga xam ne mooy tànk ñuy muddi am ndox mu nekk loo xam ne lu métti la ñu gis ko ci internet bi dafa mel ni yooyu yëpp mun si doon dox te ñut yu bëree bëri xamuñ ko na nga def noo tudda ak kan mooy woon Moussa si yow Moussa kana dimbari simwa yande ari kumusiwe mina mojokera dimbari tala ari kwano homona aparokoto neduwalai vake vake vak vadi musa ban fa sang nyet la won musa mm-hmm. ah. mm-hmm. mm beta mm beta do esa a ah, jere jere

amuñ fexe jaam su nangoo rek yàlla bëgg mhm. ndogal yàlla mooy am mhm. neex la wala mu nakaree mhm. kon lu si des muñ rek waaye musaa defa baax dafa ful ak si jub moom soo soo ko xëccee rek moom seetaan na si wax bi bu ko doon musu rek moom fu jaamee am fa rek kafaaree rek lak ci bëgg parce que famille yaay moom suñu jógee place yàlla yàlla delloo ak kenn du ngeen a uf say njabootam waaye tey moom ku ci wax ku waxut kenn ku nekk soxla baa fees mm. baaxayam la kon bi yëpp la ci mm-hmm. mm. waaye famille yaam bi ak dëkk bi mm. xam ne kuy kan ñëpp la yemale amul yaay amul kii suma kii ndëri ñëpp la yemale kon loolu rek doy na si fees dëgg la ñu ngi si naxaat waaye ñu ñaanale ko yaa façon jikko bu mu am yàlla ñëpp mu nekk ko xam my mhm. mhm. hand eh, jërëjëf ma ne ko jërëjëf Moussa saa bu ma ko gisee ma ne ko da nga ni man si ko defee mu ne ma ne nabu ma la aji faatu laa nopp mm. eh, macha allah Moussa ku baax la ku baax la ku baax la Moussa foo ko fekk rek mu ngi wër mm-hmm. yaay Moussa moom ngeen dégg noonu moom moo nekk di yuuxu moom moo nekk di yuuxu daw na yaram massa massa masa masa Allahu akbar Allahu akbar masa surat amana nabi balala ka wala tao Ejoy eh, jabal musata kuna kami amna bukomiti Allahu akbar kabira bagul joy masa comme ni ngeen ko gisee rek fu mu nekk nii kani, ne aku fu mu nekk nii yéen a ko gis néeg bi mu dal nit yi ñu parce que expecté woon ne Moussa dina génn àdduna daan bi ki nga xam ne moom lañ doon waxal bu yaagut ma ne moom moo nekk di jooy ma ne ko moom moo nekk di ma ne Moussa dafa contribute lu bëree bëree bëri si seen family si seen family dafa dafa contribute ñu ne mooy joxe dépense mooy euh, toppatoo yaayam si néeg bu mu dëkka nii moom Moussa moo ko def ne moo tax métti na ko massa massa massa massa massa Sasa meta. Weird. kon it's it's it's really sad Why sometimes suñ liggéey bi du dee yomba I ba léegi rek nga wax ñu maninka low low hamalal musa because it's it's it's really sad but liggéey mom, fuck you ñu def ko you ne ko foog sigil ko yeah comme na ko waxee rek ah, maa ngi jibeeraam lépp man jibeeka bi ah, ah, moom mooy Aïssa Tuba ñooman diyaa bi Moussa Kita moti miyaa lon ko ay moo beere I'm kon yimbata ñi institution o ti o yimbata jande so a ketan huti mi yalan ko nana tan to din wala karola ay mol ma koy bakala mm-hmm. that is a very genuine person a very hard working person um suma mag bu jigéen bu ma xoolee ay 3 am dama doon nelaw but because normally moom su ma xoolee time dama dee xam ne ditch la straight so I had to reject the call after ma continuer suma nelaw so bu ma jógee by 5 am because tey dama waroon a dem court ñantakatanum court la you know um, ma gis Lamin Kessé mu pose outside déedéet lii mënu sa nekk dégga you know so si laa dugga suñu Um, waay jaak page bi and then ma gis Moussa na taalam paa na taalam mënuma koo understand ma toog njëkka ma sant yàlla njëkka ma ñaanal gaay because um, noonu la war a um, none of them deserve the kind of death that tey gaay bu ñu am because Kenyan Yaranga, there's an accident. But, you know, it's the will of God. So we have to accept it and then pray for them. So Aisha, Musa, ban fasong nit la Musa, I can fully remember su ma demee si ministry bi every day uh, time covid period all the time su ma ñëwee mu young you people because a lot of times man dama dee tooñee gaay su may laajte gaay questions instead of you know directing them to that particular person dama dee wax you people so mm. even the minister himself uh, Dr. Ahmad Lamin Samatem maa ngi koo jaale director of health promotion we are xam most Moussa foofu you know all the time when you were like, you people at times su ma leetee sax Moussa mu ma am footages from uh, from some of my colleagues so Moussa nit ku baax he's very hard working so ñu ko ñaanal um, fu mu dem uh, yal na génn foofu téeméeri yoon fu mu jóge um, yal na bii mooy baax la um, suma journalism he is an amazing person ndeysaan uh, ngeen gis uh, kilifa yi ñoom ñu ngi ñëw si kër bi ki mu ngi uh, naka la waxal maire bi ku mu bàyyi jooy bi yéen a ko gis broda bu baax. ma ne ko broda bu baax moom it euh, dafa mel ni euh, ku xamante ndeysaan moom moo nekk di kansul euh, yaayi Moussa yaayi Moussa ngeen a gis ni moom waa ji moo ko nekk di ko kansul na nga def Moussa suñ collègue la ñun ñoo doon liggéey ñu ngi live on Gambian Talents TV noo tudda Bambo naka Bango Konba ok Bambo loo ñu mën a wax si Moussa Moussa actuellement xanaa ko rek def nañ leen garantie leen bi yoon Honestly speaking, very good person. I don't know what to say more. If I want to say father, I might even cry. Mm -hmm. Definitely he's my brother. Mm-hmm. That, that's the brother. Mm -hmm. So that's the only thing I can say, honestly. I cannot say anything beyond that. Mm-hmm. Alhamdulillah. Yeah. Mm-hmm. Mayor Massa I think she cannot say anything. Wow. I, I said, yeah. Wow. Wow. Wow. Wow. I know at least more last week. Listen. Listen. Wow, definitely, it's very, very painful. Listen. it's devastating, honestly. alhamdulilah sant yàlla. massa massa massa leen ñu gërëm yàlla rek. ma ne ko massa waaw loolu nag ah kii doom baayam ah Hadi Ndaw Hadi Moussa sa lan la Hadi dañoo demee nii parce que side bi mu ngi xaw a am noise dina bëgg a waxtaan ak yow tuuti nga wax ñu loo xam si Moussa Ndaw Hadi Ndaw loo xam si Moussa waa lewet ak jullite loo leen dafa ñëw ma fekk ma fii muy sant ndaw ma sant ndaw sant ndaw mu sant ndaw mu ne ma xali ndaw mu ne ma ñun waa Ndoukoumane lañ ñëm ndaw Kounda Ndoukoumane lañ bari wuñ nañ jàppante bokk ndey bokk baay Moussa man kër gi fi ma fi lay jóg lu ma am maanaam Moussa xew si kër dafa am doomi si sene asal da at bi yëpp maa maa dugal a ma ko cër bu ma jox am naa fi ma dëgg na kulak léebi na tàtti morom sama buntu kër maa wax doom baay da nga ma ne ko waa ma laay wallaay maa sama xale yëpp Moussa dafa a nit kon leer foo gis mooy suma rek every day mu ngi smile smile rek foo ko gis te alalam moomu ko soo ko bàyyi sa loxoom yaa ko fa bàyyi wala loo fekk sa moom yaa ko moom Moussa jooyaguñ ko di ko lu mu ñàkk fii yàlla si loxo. Xadi Ndaw si gëstu bu ndaw bu ñu def dégg ne ñu ne Moussa moo defal ah, li nga xam ne mooy waajuram ah, fu nekk nii. Euh, suma yaay naa moom na moom mënuñoo wax ay mbiram sax ndax Moussa. na def ba tek ci xolam bi mu sat muy natt ko si xolam even démb rek mu ko nan na ñaanal ma su ma ñëwee suba suba yàlla su ma ko dama su toogee na la yóbbu nga faji fajuwaat was lo ne ko he yalla ma nga ita kay na kay ne ko amin rob tak sa fleen julé ñom ñep hmm. gis nga maa ngi rob sa ñu ngi leen ko ba pare waaye nag daal na moom ñu ko ñaanal dal mu na muñ nek yalla ma ko muñ ko fële muñ Moussa li mu yàlla si yàlla am na ñeneen xale yu góor ñoo doog jigéen xale yu góor ci am xale yu ndaw am na yàlla teg leen loxo. Hmm. xale ko àjjana déedéet la fi laay am. amiin yaa rabbi amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Euh, na def euh, waa ji euh, ñu ngi la gis fii noo tudd ak foo jógee. Ah, You're live on Gambian Talents TV. ওকে এন্ড ট্রমা লাগজান বলতি gamna tolen tv ala baka baka nan banda to na kata mun na on kullam dental because ala blood sister and we same mom and papa for dental family so na dogo fanan kono ko sona kalam tan ngate akulu tan to famano ko ɗum min tan ngu bana san ala skuli fanan be ka woni ko gawna stan den afta ala senior school anada transport ko amte bari yaasi na on ko lamto ni jawar ka wa ndelo be laare men ɗon sama naa juumoo rek information mo soto ko min ko on ko kambar ko mo ko ko mo ko banda accident ko sajo so soto gurna mo man believe ko dum believe so data kata internet ko kaji na rajo ko moolu waake france ko tusan la jama musa mo ken do ala sikina mo wala ko ngam har ma fata ko furo mo si fa fulal mo mo mo fata furo si fa fulal ko furo mo na ko la society da mo furo mo na ko society batata ko mom yan ko bira fata society da ko mo furo to mo ko furo furo mo yan ko furo ko na ko among ko fuwe kende bi par mum yang ka fata bi rata society banata ko mo fuwe ko man ko fuwe ko nan yola ko mo non non ko sman ko ko bi rata do do afata mo men dajal ko bari fuwe mo yang ko bi rata society banata ko mo fuwe ko man ko fuwe ko nan yola because bi rata ka lo dami mon mom mo so do so lo non akabadi ya sika kusini hicho kama fudu tena subira hata damu ya baru kus mul mum musul men solo no je kami ati fuge kunna diola musala tamu solo men dia aku mau bini fi afan men diola musala damu musa fon fon le je men be jam men be kam men ni na nda mul bi dana le men bi bi ti biro la mo bi dua kam musala fa sa sa aljanna kul firdaus la ata men bi tata anan men bi fata ntel denkinata men wala ni ndiko accident la accident mi yalon ko ala ka lanni ngala jajal wonde gilifta walla mansatalla wonde fof ala qur'an o kono o ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala ni to fala mo fala yimon musafi al qur'an o kono nasita ay bo kullu nafsin da'iqatul maut every living soul must this day laatola ko ka foto ala waatole siita so dal

Ah, dafa mel ki eh, kii moo nekk di doon def ñaani amin sabari sabari zero kana komi nga min koto konse munya sabaro ala ni saballalo sabaro akolata damen kila ko eh, sallallahu alaihi wasallam eh, masibo boyte dame utumolum sabar wato banin ko mba kumbola nga kumbo o kola nga nana sabar an sa ngam ta ko kumbo talen kortan nada sabar banin sabar ta bi ala se kayra ba min ngaji kay ala sa timmande banin nga ñaji o bonga e mba torale kila sallallahu alayhi wasallam a yamaro kele ko on kana fure e kumboni ñaji o sonnomo se sunu muslime o nila muslime o fa ila ñom muslime baɗin fada sonnomo le ka sunu sonnomo e kumbo bari ite fen fola famin ɓe ala duñandena subhanahu wa taala ye duwa kaye duwa damma aɓe aɓe sulariwon muslimo hakko ɓe ni men ɓe ni ño muslimo kam même banta wolom ka duway ala hakkole ɓe kam pour e duway de bari ni kumbo ta e doro e ñaajo ɓogato e kaate toral bari ala ka malaykol lenade kamin seedi an natol kumboɗa doron malaykol kaate mutale ka jiije ka fay ko ñin kamin foytema foytara woti ba sa tara do a manque woti a tara allah kumbole a sabale o kama bar nal duwata doron ila ko mode banna ale duwa kaya ale wala ale salama mi mo tannan si mi mo franka kalama an fenna fo ala se wala duwa an fenna muslimo men bijanin la ko tan to mo be duwa kala o si ala mo tannano to to ngaduwa ke fo ala se o duwa ftanna afela ay wosiyo di ay wosiyo di koy sala dinewol karande alquran woto wo mu jigi balate moñie omo jigi baalde moussa e nin musilime o tewa malla alala ata jarela e wosoyo ɗi konin tekkere al indiol karan woto momi yo mira ay ay sooma miral woto jigi baalaɓe ñin nakkuwo comme ngaafo ñaamen tel be a sériale en naaɓe ñoka diino anin sooniya holomaala kuwoy alama ala o nemo jinda e, e. alama ala ya e komo sumiya ala ar jamme kallanke daye sallllahu ala nabina mouhammad nimaan ala soo comme ni ngeen ko gisee rek jabari Musa yaa ngi ni moom tamit dafa mel ah, ndaw la nekkut koo xam ne ah, la ah, ndaw la te soxla na ndimbal def kër bi Ah, soo leen ko mënee jàppale dina kontaan tur bi Sona naka Camara Sona Moussa ban façon jëkkër la Musa salwat muka dah hanin tabi siri ni mansal aga suna ni mauli salmuri kelam ni ma Musa betiata Musa ini ni hanin tijam muka dewum ndingni aye nene ah, aye muta ñaajoo fita aye fa ñaajoo fita léegi jox ñun sa téléphone number ku la buga japale parce que xam nañ yaa ngi émotionnel joxeel téléphone number bi 30 3083 3083 122 loolu mooy nomba jabari Moussa Ndaw ngeen jàppale ko parce que gars am neen euh, foodoom am neen tamit ay siix euh, ngeen jàppale jigéen ji euh, loolu dina dimbale bu baax a baax a baax a baax su ko defee rek leet musa Ndaw moom it fu mu nekk di nga gis ne dina xam ne Gambien si tam support nañ ko parce que si liggéey la nekkoon mission yi liggéey la nekkoon ñuy ñaan nag nguuri Gambia jàppale ko di ñaan yàlla ñëpp jàppale ko Ah, bu leen xeeb dara ku ngeen jàppale ko ah, gis ngeen ko ba léegi rek ah, nii leen nekkee ñu ngi nii ci biir kër bi ma ko ñu ngi nii ci biir kër bi nit yaa ngi ñëw ah, di ah, jaale ah, li nga xam ne nag mooy dëj tey bi mu nekk loo xam ne lu métti la mu nekk mu nekk loo xam ne lu métti la métti na wax dëgg neex yàlla ma ne ko métti na ba nga xam ne suñ tiim bi tamit tey Aysatu Koli mënut a def benn wax parce dafa saad ko dafa saad sis na nga def noo tudda ak loo ñu mën a wax si Musa Ndaw Mesela diyelim ki Monday konuları, Monday kafiri. Me and my mom go back, wife go back because man one day di ma laajte fan laa jógee man ko fii nii fan nag moo ko ma dëkk si kéeb rek ma fekkal moom sama Kamu sama mag man la sama mau moom ko xam naa ko bu baax muslim ada ku baax waaw macha allah dégg ngeen mi ne daf ko pikkoon liif gars ay dëkkandoo leen waaye xamante wuñ bu baax waaye xoolal rek ah, lan la Moussa Ndaw def ah, sis na nga def. noo tudda Sali naka. Sambo ah, Sali looy def fee. kan mooy si sa Aysatu ko Aysatu Aysatu lan la si Moussa. dëkkandooram la bu baax la. Mhm. waaw mhm. bi ma ko waxee rek ma ne. Mhm. foog ma ñëw. liggéey depuis Bakar Sambiya ma ñëw fi pour fekkee. ndeysaan ma ko de. man de yërëm rek. waaw comme musulma la. musulma la moo tax ma yërëm bu ma ko déggee rek ma yërëm rek ma ñëw. ndeysaan waaw loolu moo ma fi tax a yëngu. masa sigil ko waaw yal na ko yàlla may arjana. amiin amiin yaa rabbi amiin. Ah, amin yaa rabbi amin ah, ndeysaan ah, doo mun a wax mu ne ko doo mun a wax allah mu ne ko macha allah gis ngeen ko Keri Moussa Ndaw a ngi ni ay mbokkaam a ngi ni ay xaritam ma ngi ni ay am di jaama a ngi nii sis na def noo tudda ndeysaan ñëpp nag du ñuy mun a wax ma ne ko ñëpp du ñuy mun a wax ngeen gis nomba jabari Moussa bi mu ngi noonu 3083 122 mooy jabari Moussa Ndaw nombaam su ko defee yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a jàppale rek mun ngeen a jàppale jabar ji na def noo tudda ak loo xamal Moussa. Mm-hmm. Moussa ñoom ñooy jabaram ñoo mm-hmm. ku yaram jigéen la. Mm-hmm. jabaram tamit ku baax la. <laughs> massa ma ne ko massa métti na métti na métti muñ leen muñ leen ma ne ko muñ leen ah, bakken bu mës ah, dunda dafa mës ah, de ngeen gis ko waa GPU di Gambia Press Union ñoom it gis neen leen si kër bi ko gis neen leen ci kër bi tey nag moom suñu collègue bu baax Euh, koo xam ne euh, ñu nit bu ñoo nekk xale ñuy liggéey ak ndaw Ndao si Daily Observer euh, di liggéey ak moom si Ministry of Health waaye di liggéey ak moom si Ministry of Information ngeen gis ko mu nekk sat saat sat am news Gambien si nag male leen a ñaar na def noo tudda ak loo xamal Moussa. Moussa suma mhm. hmm? so tey bi nga déggee Deji musa lan moo ñëw si yow. it was not a reality to me. It was just like a, a dream or a drama to me. Mm -hmm. So I could not believe. Mm -hmm. I'm sitting here, but still I cannot believe that mm -hmm. the whole thing is true. So how was Musa at home? Ban fasong la? <laughs> Musa is very fond. He is, he is a very good example of, of a family man. Mm-hmm. He is kind-hearted. He does not get angry he is a good man. Mm -hmm. That is the whole thing. Yes, sir. Yeah. Jerejef. ma ne ko jërëjëf uh, macha allah uh, lii nag moom uh, ma ne ko kër bu nekk la de di dugga waaye yenn yi tey yenn ñu fekk si lu baax broda na nga def noo tudda yaa live on Gambian Talents TV Euh, tey suñ collègue moo génn àdduna suñ ñaari collègue sa la ñuy wax euh, Pa du faal euh, suñ beneen tiim bi ñu ngi foofu si kër bi suñ beneen team bi ñu ñu ñëw fii just rek ku bokk ak yéen li nga xam ne mooy dëj tey bi neexul nag mbokk yi suñ amee dëj nga ñëw de bëgg a wax ak gaay waaye foog rek ñu jox Moussa li nga xam ne mooy ciram jox ko dooleem na nga def noo tudda ak loo ñu mën a wax si Moussa. ah abarka waa kii antele bora sate kilin na korda jaw tili ni nyola ni bentele soko no isimu kuma ne musaya ina ya dan kuje wala kan dana ta dan dere ko komba dan ata bi janan to misterin kerwa ya. so ni so wanda juno on to tambira kan dogul la na angul yankol akon ne ko nga fenne je facebook bot ma hani ka fu moy mala mo no kire akon ne nga musa jije ko musa bandala bat nga mo ko to so akon ne ko fere ka yita ya ko jibe nta ko okay akon tan dogul la tabay ndara wekre de ni nga kon kol bolon kol so ana ko roge ko len kay ko ah ngako mala moy de bare ila so kon fam ma ko len tele so kon ngawol ko ka fon ko to ma ko nga mhm. sangal me musa ka ya wala mal ko to ngala ko ko to ngala so otam wala ndabot na na so kon bi ngam ko fam na na na ja so jamu sa musa kay mom masala nda den ten dana din ya ne mom musa kan faaji no no Iya. musa dal alhamdulillah musa mo kan bal misil mo ga men ka fol gal faraka ni kula si ala sey je fol wol ben del dala bi be su kumbo non le barne be kumbo ala be dala ni ka misil mo le ni ko tan kan misil mo ngam ngam ngam fa mo do fol ala dana ala ko pare so del dal musa nat no la so ara dame nga duwe fa so arjano rek o dem malo men del musa te ma bi wol ben musa te amin yaa rabbi ndeysaan kër bi mu ngi saat ba bugg a dee na nga def noo tudda man Hadi mhm. eh, loo ñu mun a wax si Moussa ak loo bokk moom waaw Moussa man si መንግስት ለአዳመደጃ ይኩን አባያኒ የሪ ኩር አገረ ሀለይ ዋየለ ቦለ ማሞን ቤነ ብስመኝ ስከድ ሲፈክ መንገል ሶኮም ጎሪ እንጂ ዲደን መኝ ወንጃ ሲፊ ቡኞ ጀንዳ ጀንዳል ቦኮም ይጎሪ bum jëndee ma dellu ma ñëwati indi yére xale mu jëndal xale mi tam man di bisi boobu laa jàppante moom fi ñu ko seen maa boos boos la indee bu ma gis waaye nit ku am la. foo ko gis mu ngi ree moom fu ma gis balaa may wax sax moom ree na balaa ma koy nuyu sax moom njëkk na laay nuyu dégg nit ku am ittee la daal nit ku am diine la waaw man na ma lool di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare aljana suuf sedd si njaboot gum ci ba yàlla barkeel leen ñaanal jabaram yal na ko yàlla may xoli muñ neexut de waaye nañ muñ liñ leen fi am ñëpp moom la waaye yal na yéex daal métti na moom trop Amin yàlla nañu amin may xolu njub amiin yaa rabbi jërëjëf ndeysaan dégg ngeen jigéen bi di Miss Cham mi ne boos boos la ñuy oyante ñu gis kilifa yi nag ñoom bu ñëwee si néeg bi ñoom ñoo doon waare jigéen yi ak seen jooy yi mu nekk loo xam ne nag ndeysaan ñu ne bakkan bu mus dunda dina mas dee sometimes nga gis nit muy jooy waaye dineen la guide council la salaamaaleykum noo tudda ak loo ñu mën a wax si Musa. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi tudd Youssouf Youssouf Yafa mhm. Moussa nit ku baax la suñ dëkkandoor la suñu mbokk la daanaka ñun ñoo dëkkoon benn kër mhm. daanaka mhm. parce que nijaayam sama xarit la sama taat frère la ku baax la jullit la moom Moussa Ndaw nit ku baax la nit ku oyof la nit ku yaatu la tamit doo ko musta gis mu mer foo ko gis rek mu smile di ree di kaf nit wàcc boppam nit ku wàcc boppam la tey kay moom xanaa di ñaan yàlla subhanahu wa taala jégal ko dugal ko arjanna musal ko musal eh, njabootam yaayam ak doomam yàlla dimbale ñoom ñëpp waaw lépp ñu jël ko rek jox ko suñu borom bi subhanahu wa taala dogal yàlla la alhamdulilah ñuy sant yàlla subhanahu wa taala. amiin yaa noonu rek la mu ne ko noonu la euh, na def euh, sa tur bi ak loo ñu mën a wax si Moussa. waaw alhamdulilah man daal Hadj Silla mborayu euh, Ndumle commune Mbadema Youssouf Yaafu Ñaami usan dawon tellel naɓe ñoo ko kabring waati janna fokana bula sayna sawnta dia ari ngalo ñamen wala muslimeyati anin salo moussa kata salla baleti kita mo soniyaren baati jamoto jamoto dron musakato wodi donc sobeyata ala dino la ɓayraɓe men bulu ban sen camara amir ate momolti mi yalon ko alhamdulillah ala dino fala basa bihi kambala Musa, bi fo sunode anin tala bari nga ñin jiko soto allah subhanahu wa taala ko ala ɓe arjano dino bayri aya dow ko kele anda ya baro kele so kammala fonsi sabarota doron ala dana e kayrol ani arjana alma len tan ka en famani ñool sallallahu alaihi wa ya rabbi amin ah, ndeysaan moom mi ne ñu balal ko bu boobaa nag ah, dinañ ko baalal ma ne ko du ñëpp a dee mun a wax ah, na nga def ak noo ñu baalal la jërëjëf mu ne ko jërëjëf kon nag mbokk yi euh, fii la ñoo em ak yéen suñ beneen tiim bi mu ngi ci këri euh, Pa Modou Fall euh, gaa yaa ngi koobal li nga xam ne moo nekk dëj bi foofu si këri Pa Modou Fall moom tamit tey nag moom uh, media uh, fraternité bi yëpp yëpp am uh, déj am na koo xam ne nag si suñ office la bokk muy Moussa moom it ñun ñoo dee liggéey together muy liggéey ak ñoom Moussa Ndaw liggéey ak Pa Modou many years foofu si Observer Moussa xam naa ne nag doo waxkat waaye on behalf of Gambian Talents ñu bàyyi la rek nga wax ñu loo xam si tey Moussa mi nga xam ne moom la nekk si këram waaw oh, di jaale rek di jaale famille Moussa Ndaw yëpp loolu Moussa Ndaw eh, liggéey nañu Together Moussa Ndaw nit la koo xamante ni amul benn problème foo ko gis stress wala yëfi iya problème fële moom bokkul si yooyu noonu te foo ko gis waxtu julli su jotee bàyyi lu def dina julli so ko bu baax sax da nekk koo xamante ne bin time boobu noonu suñ suñ daan wàcca boo wan tout suba bi sax daf daan nekk ak ñun yëpp foofu noonu observe liggéey bi wan tout sax wàcca ba pare ñun ñoo daan ñu wandoor fii yëpp kër kër yi bariwuñ borom sax amutoon fii so moom dafa nekk koo xamante ne nit ku baax la nit ku nit ku jullite la waaw xanaa di ko ñaanal rek di ko ñaanal fu mu dem nii yàlla mu gënal ko fu mu jógee so di ñaanal um, jabaram na namuñ waaw tamit ñu fi um, at least um, ko ku mën jàppale njabootam yi parce que ay xale lépp magaangu so na na ñëw gaa jàppale doomaam jàppale famille mm-hmm. Mm-hmm. waaw waaw nomba nomba baa ngi noonu ku bëgg jàppale famille Musa Ndaw jabara jabari nomba baa ngi noonu 3083

Tubakifati kakumalindi birarikoni ye dua kontine ko dua mousaye pamu dufa anin um, um, kawsu bayo min yalan ko bi alayi tolle mi yota ka ko dunya bole nyama bar uh, hanim bi rek anna uh, dua kontine na dua talalye an tata damin um, uh, ibata damin anita ta damin wai kusi abake ibata damen uh, so alabarka waaw mbokk yi kon nag ah, jërë ngeen jëf bu baax a baax a fii la ñoo em ak yéen ah, Gambian Talents TV ah, nii rek lañ koy wane yéen ñi nga xam ne nag yéen la yàlla may yéen la yàlla munloo di leen wax ne rek ngeen jàppale famille Musa Ndaw jàppale ki nga xam ne mooy jabaram nombaam bi nag mooy 30 83 122 3083 122 loo leen ko mun a may rek uh, du ko xeeb uh, ñu gis fi uh, few text messages and dinañ ko read just to seede waa diaspora bi nga xam ne ñoom it ñoo nekk di jaale kii di Dudu Sonko Mine Musandau is a good man, very humble and down to earth. I know him personally and these people talking in the funeral. May Allah uh, forgive him and grant him Jannah. Uh, Kidisi Huli Mine very sad. Uh, Madi Tunkara Mine um, in peace. Uh, Kinag uh, the uh, uh, Tabu Mumudu uh, me allah grant him jannatu firdaws ah, ndeysaan ah, comment si bari na ah, ba nga xam ne nag duñ mun a read yëpp waaye am na beneen team boo xam ne mu ngi si dëji Pa Modou Fall fii la ñoo em ak yéen Gambian Talents TV di leen masawu di masawu ki nga xam ne tamit mooy minister of health di ko wax massa yombut dëj bi métti na waaye yéen na leen yàlla xaaral ajana ji si ajana yi yàlla yokk jàmm si dëkk bi di ñaanal aji jiitu yi waaye uh, di uh, ñaan rek uh, ku nguur bi ñu bàyyi xel si li nga xam ne mooy yoon yi parce que accident yi tamit bari na foog rek ñuy jox gars yi ñoom it taab at the back wax leen ne ñu bàyyi xel suñu yoon yi parce que lii métti na nga nekk ab family man am sa ay njaboot sa njaboot njabooti magabun sa ñu ne la sa papa génn na àddina métti na lool lool lool kon nag Gambia bye for now ma ne ko bàyyi fa naaw massa massa jërë ngeen jëf faatu Samba la woon euh, ki nga xam ne mooy Aïssatou Koli ak euh, Moussa jaata ñun ñoo leen fi nekkal jërë ngeen jëf